Assalamu mbokku internet yi nuyu nañ leen di rafetlu saa su ne seen ànd seen dégloog 5 TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi ñu dooree ko ak mbas Covid 19 ak li mu tey bi jàppale ne si 1312 tests yi nga xam ne amal nañ ko 50 ñoo si ñëw positif soit un taux de positivité de 3,81 virgule pour 27 cas contacts am 23 cas issus de la transmission communautaire am nañ benn décès am nañu 167 ñoo xamante ne rek bañ leen profito gisatuñu feebar bi di coronavirus seen yaram dañ leen di bàyyi ñu daal di ñibbi seeni kër tey jii am nañu 31 cas yoo xamante ne ay cas grave lañ ñu ngi ci salle de réanimation jàppale ne ba mbas mi dooree ba tey jii am nañu 10 923 ñoo xamante ne ñoo wër am nañu 300 ma juróom-benn téeméer nit ñoo xam ne mbas mi moo leen faat waaye tamit jàpp leen ne ñi nekk suy traitement ñu ngi si toll si 3394 duñu def dara lu dul di ñaanal ñi nga xam ne mbas yi mooy yóbbu seeni bakkan yàlla xare leen arjana ñi tëdd ci hôpital yi yàlla fëgg seeni bopp beneen xibaar ñu wax naka ci lakk bu metti bi am ki démb ca marché zinc bu nekkee ca Pikine daanaka naka safara bi yàq na fa lu bëri euh, loo xamante ne rek bokk na ci produit cosmétique yi nga xamante ne rek dañ ko daal di stocké woon ci yenn magasin yi waaye nag tiit moo gënoon a ëpp loxo ko jaaxle ndaxte yaakaaroon nañ ni sax dina fa am ñi fi ñàkk seen bakkar waaye nag ci sant yàlla ndax amul kenn koo xam ne rek gaañu na foofee ba tey nag dégâts yi bari na foofu produit cosmétique yeeg ak yeneen état yi ñu fa defoon yëpp daanaka yëpp moo lakk ba tey ji nag xamuñu lan moo waral nag li lakk boobee moo tax sax ñii di waa police daal di ubbi ab enquête ngir mën a xam lan moo waral boobee lakk beneen xibaar soxal mën bu métti bi nga xamante ne askanu Sénégal bari na ci gox yoo xamante ne dem foofu jafe na lool bokk na ca Kër Massar ba tax nag président Macky waxtaan euh, jël dogal rek daal di jàppale ni ni mel nag tey jii lay amal benn tournée ci zone yi nga xamante ñoo gën a inondé bokk na ca Kër Massar ak bu ñu sukkandikoo ci le Libération moom mi xëy information yemu ca sax dina dem ca Fatick dem Sokone Kaffrine ak yeneen gox yi ngir rek indi ndimbal bi nga xam ne rek war na ko jox askanu Sénégal ndax boobu ba tey am na ñoo xam ne rek dañ leen luy ay kër ñu dëkk fa waaye tamit seeni bagage naka noonu seeni lal ak seen lépp dafa daal di tëmb ci ndox mi beneen xibaar nag soxal li procès Lamine Diack nag moom mi nekkoon président di président bu l'olympique bu marseille nak mom dañ ko danoon atte won ci juin bee ñu weesu ba tax ñu tek ko ñenti atu kasso way niki demb nak verdict bu genn na leer ma sata jak ak ki di papam min jak min jak dina teud ñenti atu kasso yo xamantene ñaari lay teud te mom sax dañ ko dal di soral li nga xamantene moy bracelet électrique moy nak lam yoy nga xamantene mom lañ doon wax jamono ji ngir rek âge bi nga xamne am nañ ko ki di ma sata jak nak mom dinañ ko tecc juróomi ati kasso yoo xamante ne ferme lay doon ak amende bu tolloo ko 650 millions ci suñu koppar li ni mel nag justice française ni ñu ko defee rek avocat bii di Habib Cissé daf ko ñaawloo nee na li ni mel nag du sax yëfu nit lañ koy def Lamine Diack ak lu mu def ci wàllum sport warutoon mérito li ni mel ba tax na rek mu daal di wax ne tey ci jeudi bi nag dinañ amal ab appel ca décision ngir ñu mën a jëlaat beneen décision xam ndax dinañ mel na wàññilaat seen peine bi nga xamante ne moom la ñuy dund tey ci xibaaru mbënd mi la ñuy yem rek bokk kër sar naka jamono ji naka jafé jafé yu metti mom la askan ya fa nekké di dundu ginnaw bi nga xamantene ne yoon ñu doon jaar yépp naka mo am ndox lolé tax sax sen lekin lu jëmele ko dundu lu melni mburu ak yenn sew sewani sax pour nga am ko problème na la waxatuma naka transport bi nga xamantene 100 francs nga doon fay sax dañ ko daal di yokku ba ñeen fukk mburu mo naka waxale wu mako ndax borom bitig yu bari sen boutique ya dafa tan ndox mu melni dal jamono ji naka jënd lolé ke sax kër jafé jafé la ndax bu taawoon sax te boutique yi ubbi sax nit mun a xuus dem waaye boutique yi dañoo tëj ba pare naka faw nga fay xaalis pour nga mun a am déplacement jafe-jafe xëy na moo tax président Macky Sall daal di jiitoo tey jii tournée euh, bi mu war a amal tey jii ci Sénégal ngir jàppale ñi nga xamante ne ñii ñoo am jafe-jafe ci mbënn mi bu ñu sukkandikoo ci journaliste ko mi xëy rek joxe bi la information daanaka sax boulangerie ba nekkee ca ko dafa daal di inondé kon nag xam ngeen ne jamono ji am fa mburu jafe na trop foofee ca Kër Massar ñu ci na soxal la xew ca bu ca adjoint bu ba li nga extrait de naissance moom naka daaloon jël sax lu le journal Source A mi xëy joxe informations. information moom nee na yoroon nañ lu fukk ak copies ñaari certificat de décès ñaari copie de certificat de décès benn extrait des minutes du euh, greffe greffier ak benn copie de jugement d'inscription moom nag dafa am rek benn xale bu jigéen boo xam ne rek moom la ko doon defal ngir rek mu mun a fekk jëkkëram ba nekkee foofee ca Maroc xale mu ngi am ñaar fukki at dong rek la am moom ne na dafa bëggoon rek daal di fekk jëkkëram li ni mel nag kooke nga xamante ne dañ ko bàyyi ca mairie ba moo daal di def li ni mel ngir rek mun a rawal xale bu jigéen bi mu fekk jëkkëram pour mun a am li nga xam ne mooy carte d'identité nationale nekk fexe woon na rek ba amee ko fii ci euh, commissariat bu Grand Yoff beneen xibaar mbokk yi député bi di Diop si moom nag dañ ko daal di convoqué ca OFNAC muy office euh, national de lutte contre la corruption et la fraude moom nag ñi nga xamante ne euh, dañ ko déposé plainte di waa FRAPP ginnaaw bu mu jotee ak ñoom ab wax bu sew ñooñee daal di ko déposé ak plainte foofu ca OFNAC ñaawlu rek yenn nga xamante ne mu ngi koy amal ci société boobu di IC bokk na tamit ci ki nga xam ne mooy Babacar Diop moom it dafa am rek jàpp ne dafa am favoritisme ak conflit bi nga xam ne am na digganteem ak moom Oumou Diop Sy bokk na ci plainte boobee waaye tamit duñ ci noppi ak kii di Mansour Faye nekk beau frère bu président Macky Sall moom itam bokk na ci boobee plainte tey jii bu 10 heures euh, niki suba ci 10 heures jotee lañ ko daal di audité foofu ca office national de lutte la euh, fraude la corruption te kii di Seynabou Ndiaye jaxate daal di ko jiite Diop Sy nag euh, buñ ko jàppee nag mun na am nag ñii di waa OFNAC ak lu ñuy saytu seet ci wàllu alalam rek bu ne dépassé lu ñu bëgg rek mun na am ñu nekkoon ak xibaar yi gënoon fës nag ci suba si ñu leen di jox dig daje ba ci beneen euh, bu neen xibaar nag ji leen jaajëfal si dina wax ngeen daal di abonné ci suñu chaîne bi di 5 TV ngeen ngeen mën a am xibaar yi wóor te wóor ak lépp lu xew Sénégal rawatina ci àdduna bi jërë ngeen jëf.